bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin waala alihi wa saxbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawm ddin mbokk yi jàkkaarloog ñun ñoo ngi leen nuyu fii ci xanaatul Mahazara Nouakchott ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di dellusi ak yéen ci seen téere bii di risalat abi zeydin alqayrawaani di leen fàttali ñoo ngi woon ak yéen ci baabun fi salaami wal istidaani waltanaaji walqiraa ñëwoon ak yéen ba ci fu muy waxee ni ku dem ba dugg ci génnukaay ba faj aajoom ba génn limu mu war a wax tey nag mu ñëw ak yow ci ni nit ki war nay muslu ci lépp lu mu ragal mu ni wa tataawadu da nga muslu wa tataawadu da muslu min kulli cheyin ci lépp mu doon taxaafuhu boo xam ne da nga koy ragal lépp ragal daal na nga ñaan mu dox sa diggante ak loolu musal la ci wa indama taxillu soo wàcce bi mawdiin ci bërëb aw tajlisu walla nga toog bi makaanin ci place te mooy bërëb aw tanaamu walla ngay nelaw fii ca bërëb ba taquulu da ngay wax maa ngi musu bi kalimatillah ci kàddu yàlla attaammaati ya di way mat min charri ci ayu maa li nga xam ni xalaqa bind na ko nag loolu ngay wax te yonent bi nee na soo ko waxee toog ci bërëb insha allah dara du la fa lor ba ba jege kon gàtt na yomb na jaadu na ñépp mokkal ko di ko wax ci bërëb boo mën a nekk di audu bi kalimati llahi tammati min charri ma xalaq wa min altaawudi bokk na ci muslu an taqula nga wax audu maa ngi musu wajhillah ci jëm yàlla alkarim bay aji wa bi kalimati llah ak ci kàddu yàlla yi attammati way mat allati yi nga xam ne laa yujaawisuhunna du leen jéggi barrun aji baax wala faajirun du jeegeenu aji kàccoore wa bi asmaillaahi ak ci turu yàlla yi alxusna gën a rafet tur yépp kulliha lépp maa alimtu minha ma ca xam wa ma lam aalam ak li nga xam ni xamuma leen min charri ci ma li nga xam ne xalaqa rëdd ko moom yàlla ñu ni bind na ko rek wa daraa bind na ko waaye moo ko sakkanal ci suuf si wa bara moo ko bind mana ñetti baat yi yëpp wala fi ñoom daana ko benn firi lañ koy firi waaye xalq mooy rëdd bi maanaam tracé wax ni muy mel melokaan baak yooyu loolu mooy cosaan bi mu dem suñ ko waxee rek ni bind lañ koy firee zaraat bind lañ koy firee bara ak dalik wa min sharri ak ci ayu maa yanzilu la dana wàcc min assamaa'i bàyyi ko ci asamaan wa min charri ak ayuma li nga xam ne yaaruju dana yéeg fiha ci asamaan wa min charri ak ayuma li nga xam ni daraa bind na ko fi l ci suuf si wa min charri ak ayuma li nga xam ne yaxruju dana génn minha ci suuf wa min fitnati leyli ak finnay guddi gi wa nahaari ak finnay bëccëg bi wa min tawaarix ak way rot te mooy way fëgg di yeete a layli guddi gi woon nahaari ak bëccëg bi illa tariqan dare aji rot di aji fëgg yatruqu boo xam ni dana fëgg bi xayrin ci yiw yaa rahman yow mi nga xam ni yaa fees dell ak yërmande ak taariq dañ koy wax ki ñëw guddi waaw dañuy wax ki ñëw guddi li sax faw mu yëglu pour ñu ubbil ko waaw moo tax ñu koy firee maanaam aji rot waaye moom aji fëgg lay nekk wala aji tàpp maanaam aji dóor comme kii dóor martu moo tax ci la ñuy génnee baat boobu di mitraqa wa yuqaalu danañ wax fii dalika ci loolu aydan ba tey wa min charri ak ay kulli dabbatin bépp aji dukkat te mooy lépp li dox rabbi yow sama boroom axidun aji nga bi naasiyatiha ci cëmbargaam te mooy njañam yaa ngi ci jàpp inna rabbi wóor neen sama borom ala siraatin ma ngi ci yoon mustaqimin wu cow maanaam ma ngi wu ci yoon wu cow te lépp li muy teg nit ñi yoon la woo xam ni yoon wu jub xocc léegi nag mu lay wax koo xam ni dugg na këram lan la war a wax génn bay dugg lan nga war a wax mu ne wayu saxabu dinañu sopp li man ñeel ki nga xam ni daxala dugg na manzilahu këram an yaqula muy wax maa sha allah li soob yàlla laa quwata déet benn kàttan di jariñ illa billah lu dul mu sukkandiku ci kàttanu yàlla maa sha allahu laa quwata illa billah kooku dañu bëgg ki dugg ci këram mu koy wax kon amaan na du fa gis maanaa lu ko naqadi léegi nag mu lay wax tegginu jàkk yi nga xam ni sib nañ ko ñu koy def ci jàkk yi mu ne yukrahu danañu sib al amalu jëf te mooy liggéey fil masajidi ci jàkk yi min xiyaatatin ci ñaw wa nahwiha ak la ko niru ndax def jàkk ji place ñawukaay da nga am looy ñaw nga dinaa dem jàkk ji ndax moo gën a féex toog fa di ñëw daga am looy ràbb da am leneen looy def nii dem ci jàkk ja def ko fa ngir moo gën a féex mu ne déedéet loolu maanaa kenn tàmmu ko wala yaxsilu du raxas yadayhi ñaari loxoom fii ci biir jàkk ci wala yaakulu du lekk fii ci biir jàkk ji illa lu dul mithla shay'i nikil loo xam ni alxafiifi aju oyof la ke sawiqil deme ni mburaake maye nañ ko wa ak la niru wala yaqussu du wàññi fii ci biir jàkka ja shaaribahu naanu waayam te mooy mustaasi du koy wat ci biir jàkka ji wala yuqallimu du lelli fiihi ci biir jàkka ji ay weyam dañ koy tere wa in qassa ndem wàññi na shaaribahu naan waayam ci biir jàkka ja aw qallama wala mu lelli ay weyam ci biir jàkka ja axadahu jël na ko fii saw bii ci malaanam maanaa na ko ëmb ci malaanam ci yërëm wala yaqtulu du rey fii ci biir jàkk ji xamlatan teeñ wala du jaageen mu rey burxusan mat wa urxisa yolamal nañ fii mabiit ci fanaanu alxurabaa i way tumrank yi fi masajidi albaadiyati ci jàkkay dëkki kaw yi yeene jàkk yi nga xam ni léeg saa amul sax ubukaay may nañ ñi nga xam ne dañoo tumranke ñu fanaan ci ndax ñi nga xam ni dañoo ñëw ci dëkk xamuñu fa kenn amuñ fu ñu dal maye na leen ñu fanaan ci waaw ndax ñooñu xëy na melul na jàkkay biir dëkk yi nga xam ne ñoom koo ci fat mu jéem sàcc la fa nekk la génn balaa nit ñi ñëw bare na ñoo xam ni dañuy bàyyi ba nit ñu julli ba pare ñu ñëw ñoom mel na kuy jaamu yàlla ngir nga wóolu leen bàyyi leen jàkk ji soo leen fa bàyyee rek soo ñëwee fekk am lu manqué moo tax jàkkay teero bi moom di dëkk yu mag yi soo jullee daal ba waxtu yi paase soo génn tëjal bu mu dëgër yóbbaal sa caay bu moo gën a wóor soo fekkee ni bëgg nga loo fa bàyyi woon nga fekk ka fa waaye soo ko bàyyee noonu rek te kenn nekku fa ci waa jàkk ji keneen man dafa jaar jël fa loo xam ni njumtuwaayu jàkk ji la saa ñëw di la nax naa la néegu yàlla la kon nag néegu yàlla kenn du ko aayee jaamu yàlla bi ma ne xànk néegu yàlla waaye da ko teg ci ay loxo ñi nga xam ne ñoo koy toppatool fi manqué ñoo koy jënd di seet li manqué ak li lii jaadu yow mi nga xam ne danga fee ñëw ngir rek jël rek yóbbu kenn du la fi bàyyi dañ koy tëj mu ni wala yambaxi du yàlla an yaqra amuy jàng moom moomu alquran fi lxamaam ci biir douche illa al lu aaya illa al lu dul ay aaya al way néew wala yuksiru du ko bareel wa yaqaraw dana jàng arraakibu aji war yani ku war mën na jàng alquran wal muttajiu ak aji tëdd ki tëddeen mën na jàng alquran wal maashi ak aji dox min qaryatin jóge ci dëkk ila qarya jëm ci dëkk wa yukrahu danañu sib nag dalika loolu lil maashi ñel aji dox ila suuq jëm ci ja ak ku jëm marché nañ muy jàng alquran waqat te dëgg qiila nee nañu inna dalika loolu lil mutaallimi ci taalibe waasiun aji dagan la taalibe moom may ko muy fàttale ku bindam te fekk sax ma ngi ca marché ba wala ma nga jëm marché wa man qaraa ku jàng alquraana alquraan di kaamel bi di mushaf yëpp mu jàng ko fii sabin ci juróom-ñaari guddi fa dalika loolu xasanun rafet la naa juróom-ñaari jataay juróom-ñaari guddi juróom-ñaari bëccëg ci jàng alxuraan maanaa def na rafet te mooy nga xaaj kaamil bi juróom-ñaari cër cër bu ne nga jàng ci benn bis ñu koy def wa tafahumu jéem a dégg nañ maanaa li ngay jàng maa ànd qillati néewug alqiraati jàng afdalu moo gën fuuf di jàng lu bare doo ci jéem a dégg dara waru yo solof na ann annabiya wóor na ni bi alayhi salaam yann mucc sax ci moom lam yaqra'hu jàngu ko fii aqal li gën néew min thalathin ci ñetti guddi wala ñetti bés li sallallahu alayhi wa sallam mosul jàng alquran ci li gën a néew waaw am na ñu koy jàng benn bés ndax seen jot may na ne ko am ñu koy jàng ñaari bés ndax seen jot may na leen ko am ñu koy jàng ñetti bés ndax seen jot may na leen ko waaye daal lii gën mooy nga jël loo xam ni daa ko mën a maanaa dellatu daa ko mën a settental ba mën a dégg maanaa maanaam bu baax a baax jéem ci teg sa tànk jéem ci teg loo maanaa ñeneen seen tànk wa yustahabu danañ sopp lil musaafiri ñeel aji tukki an yaquula mu wax inda rukubihi ci waram bismillah ci turu buur yàlla lay ware allahumma yow yàlla borom tur yu sell yi ak melokaan yu kawe yi ante yow de assaahibu yaay aji àndaale ji fi safari ci tukki bi ñu nekk wal xalifatu yaay kuutaay gi fil ahli ci ñañ xanaa yow la ñu àndal yow bàyyi ci kër gi allahuma yow yàlla borom melo yu kawe yi yu sell yi inni wër ni ma ne audu bika maa ngi muslu ci yow te mooy maa ngi ñaan nga dox sama diggante min waadai safar ci coonay tukki wa kaabatil munqalabi ak njàqare wàññiku wa suil manzari ak bonu gis fil ahli ci ñañ yi wal maali ak alal ji maanaa gis boo xam ne day nekk gis boo xam ne day naqaral xol day naqadil xol gis boo xam ne day jàqaloo nit maa ngi ñaan nga musal ma ci sama waa kër ak sama alal wa yaqul dana wax arraakibu aji warja ida stawa su yemoo te mooy su demee ba toog ci kaw limu mu war ala daabati ci kaw daaba ji walla ci kaw oto bi wala ci biir avion bi subhaana tut naa seetlu alladi buur bi nga xam ni saxara la naa tàggatal nañu haada lii buur bi nga xam ne moo ñu tàggatal lii ñu war wa ma kunna nekkuñu woon lahu di ñaal ko muqrinin di way attan wa inna wóor ne nun rabbina jëm suñ boroom dong la munqalibuun way wëlbatiku lañ wa tukrahu danañu sib nang at tijaaratu yaxantu yaxantu mooy di jaay ak di jënd mooy commerce ilaa jëm ci ardi suufu al aduwi noon wa baladi Soudan ak réewu ñu ñuul ñi loolu nag jamono la woon bi nga xamee ni xëy na la fa not mooy ñi wet di yàlla ñoo fa dëkkoon waaye su doon jamono bii la xam naa ni baat bi moom borom téere bi dana ko génne ci li mu bind waaw ndax léegi moom fa tabaarakalla lislaam tasaaroona ndegam kenn sibul maanaa dem ci maanaa réew yi nga xam ni ñi fa dëkk ay yéeféer lañ te ñuuluñu ak a bare réew yi ëpp doole ci àddina bi ña fa dëkk ñi ci ëpp ñuuluñu te gëmuñu yàlla waaw kon baat yi moom mën na wax bilaadul rek mu jeex waaw maanaam réew ñañ weddi di réew yéeféer yi kooku mën nañ ko dégg waaye su dee ci jamono bi ñu toll moom bële di Soudan moom loolu moom maanaam dàqu na ci jamono bi ñu toll wa qaala wax na annabiyu yonente bi alayhi salaam yenn mucc sax di wàcc ci kawam asafaru tukki qitaatun dogit la min al azaabi ci mbugal nee tukki maanaam dogit la ci mbugal ndax commencé nga tumuranke commencé nga gis ñoo xam ni xamantewu leen dem ci bërëb yoo xam ni ko togg ay coono léeg-léeg nga bëgg lekk doo gis loo lekk bëgg naan doo gis loo naan bëgg war doo gis loo war dem ba yàgg sa warukaay paan yooyu yëpp ay coono la moo tax mu ni as-safaru qit'atu min al-adab wala yambagi du yell an tusaafira di tukki almaratu jigéen maa ànd ak xayri kudul di mahramin minha ko ju armalanteem te mooy koo xam ni seen diggante xaraam na ci sëy jigéen daal suy tukki war na ànd ak boroom këram soo fekkee ne àndul ak boroom këram na ànd ak góor ñi nga xam ni maanaam seen diggante xaraam na ndax kon danañ ko sàmm ndax ma dafa néew doole dafa gaaw jaaxle kañ mu ni safara yawmin tukki bëccëg wa laylatin ak guddi bés lëmm daal yoon mayul jigéen muy tukki tukki boo xam ni àndul ak maanaa jegeñaalem àndul ak jegeñaalem wala borom këram fa akthar bala ëpp benn fan illa lu dul fi xajjil farida ci aju farata xaasatan ci jagle fi qawli malikin ci waxu imam malik rahimahullahu taala fi rufqatin ci ay àndandoo yenn wolof di ko wax sette waaye mooy àndandoo rek ay àndandoo ma muunatin yi ñu wóolu nag mu ànd mbooloo moo xam ni dañ leen a wóolu su boobaa kon dana mën a aji makka te fekk moom kenn moo ci nekk ba ci jamono bi sax tukki yi ni ñu koy defee daanaka rufqa maamuna ndax li ci ëpp dangay dugg oto oto bi maanaam fi mu dépare ak fu muy teere daanaka maanaam benn la nga ànd mbooloo moo xam ni maanaam daanaka dañuy wóolante dañuy jàppalante chauffeur baa ngi fa léegi saa sax am koo xam ne ma ngi ànd bi loolu yëpp moo tax léegi saa na dagan su dee avion yet am na équipe bu ànd ak ñoom loolu moo tax léegi yu bare maanaam jamono soppiku na ba yu bare mana maanaam mujj nañ ci def yolomal wa in lam yakun doonte nekkul maaha ànd ak moom zu mahramin ko ju armalanteem fa dalika loolu lahaa am na ci sañ-sañ maanaam ñeel na ko loolu dañ ko doon wax muy sharia liñ ci bëgg rek mooy aar jigéen ji ñoŋol ko ba mu bañ nekk koo xam ni kii maanaa dañ koy gaaw a maanaa not ndax dafay gaaw a jaaxle di sàkku ndimbal te am ci ñoo xam ne tabarkàlla so sàkkoo ci ñoom ndimbal rek ñoo gis am lañu gis ci yow xool la beneen bët loolu nag musiba la ko jàll ci baabun fi taaluji wa dikri ruqa wa tiyarati wa nujumi wal xisaayi wal wasmi wal kilaabi wa rifq bil mamluuk mu ni li bunt la leeral fi taaluji ci faju wa dikri ak tudd ar ruqa mocc mocc da jàng ay aaya di tëfli wala jàng ay musulaay di tëfli wa tiyarati ak gaaf wan nujuumi ak li aju ci mbiru bëddéew yi wal xisaa ak tàpp wala mor koy def bàyyi ma wal wasmi ak maaro te mooy marqué wal kilaabi ak xaj yi ndax war nañ leen yar wala déet ci kër yi wala ci àll bi wa rifqi ak jàppandal bil mamluuki ci moom téef di ko yërëm di am ci moom yërmande mu ni wala baasa aayul bi listilqaayi ci mocc sàkkoo mocc min al ayni ci bët wa xayriha ak lu dul bët nag koo xam ne bët moo ko jàpp nee na mocc ko dara nekku ci te dafay am nag ndax al aynu xaq yonente moo ko wax nee bët lu am la dana dugal waaye ci bàmmeel comme ni muy dugalee gëléem ci kaw dir ci cën maanaa yudxilu arrajula alqabra kama yudxilu aljamal alqidr wala fi lqidr kon ma ngoog waaw bët daal lu am la ceteet lu am la wa taawudi ak muslu ci bët ak leneen ludul bët wa taaluji ak faju dagan na wa shurbi dawaayi ak naan garab dagan na wal fasdi ak gàjju dagan te mooy xotti bërëb ngir deret di bon ji dagan wal kay ak ñaas te mooy lakk tàngal weñ wala dara tekk ci bërëb dagan wal xijaamati wal xijaamatu kon bopp wax la mubtada la mu ni wal xijaamatu nàmpatalu xasanatun aj rafet la wal xijaamatu nàmpatalu xasanatun aji rafet la wal koxlu tësngalu lit tadaawi ngir faju li rijaali ñeel góor ñi jaizun aji dagan la wa huwa moom tësngalu min zinati nisaa ma ngi bokk ci taaru jigéen ñi dafa bokk li jigéen ñi maanaa rafetloo di di defaroo waaw dañuy maquilloo dañ koy maquillage moo tax waaw moo tax góor moom faju dong lañ ko ci may di ko def ci bëtam waaye nag kenn mayu ko mu koy diw ci ay tuñam wala leneen wala yu taala yu deesul fajo bil xamri sàngara nee na sàngara moom kenn du ko fajo wala du jegeen bi najaasati sobe sobe kenn du ko fajoo def la bëgg wax ni lépp lu yàlla defu ci saafara ñim ko xaramal ci ñoom wala du jaageen bi ma li nga xam ni fii nekk na ci maytatun méd ndax dafa xaraam wala du jaageen bi cheyin dara mimma li nga xam ni xarama xaraamal na ko allahu yàlla subhanahu tudna sallam wa taala kawe kon daal sallallahu alayhi moo ñu wax ni yàlla subhanahu wa deful saafara xeet wi ca li mu xaraamal ci ñoom mu ne wala baasa aayul bilig tiwaay ci ñaasu te mooy lakk bërëb ngir faju war ruqaa ak moccu ak mocc bi kitaabillaah ci téere yàlla bi te mooy alquranul karim ay aar yi nga xam ni seeni njariñ nattu nañ ko ci ay mbir ba mu wér nee na dara nekku ci wabil kalaami ak ci wax ak poy bu teey te mooy wax ju set wecc boo xam ne amul benn shirk amul benn bokkaal ak wala baasa ayul bil muaadaati ci muslu te mooy muslaay nee wala baasa ayul bil muaadaat ci muslaay tuallaqu boo xam ne dees na ko takk wa fiha te fekk nekk na ca alquranu kon ma ngoog kon su ko defee borom risaala weddiwul takk téere weddiwu ko en fekkee ni quran moo ci nekk wala wax joo xam ne wax ju sell la di ñaan loolu neen dara nekku ci waaw léegi ne àgg nañ jamono joo xam ne ji ku takk rek indi ay ku takk téere indi ay ku bind alxuraan naan ko indi ay ku ko bind sangoo indi ay ni man taallaqa tamimatan faqad ashraka ñu ne tamima bokkul lii ñuy bind takk tamima gaa yi dañ doon ñëw di tuub si indaale seeni maanaa ay ay galan ak ay yax yi ñu takk ak lu nekk ay xànc yonte xamal ni yii moom jariñul dara waaw jariñul dara ku ko takk yaakaar ni moo aar yaa ngi bokkaale ak yàlla ba ki téere bi sax koy def sabablu waaye du moom moo lay aar yàlla moo lay aar waaw wa ida waqaasu tàbbee alwaba mbas bi ardi qawmin ci suufu ay nit fala yuqdamu alayhi dee sufa sóobu kenn du fa sóobu kenn du fa dugg wa man kaana ku nekk bihaa ca suuf sa falaa yaxruju du génn firaaran ngir daw minu ca mbas ma lii mooy cosaan yonent bi alayhi salaam wax ko ni mbas su amee ka fekk ci bërëb bul génn waaye ku fekkul bu fu dugg loolu jamono la mbas mi ci benn bërëb dong la nekk wala ay bërëb yow fa nekkul fa dem waaye comme mbas mi nga xam ne dafa wesaaroo ci àddina bi yëpp ndax moom atte boobu da ciy wala déet ah na seetaat jar na seetaat mbas mi dafa wesaaroo ci àddina bi yëpp kon ndax moom tukki dañ ko war a dakkal wala déet bi ñuy dakkal tukki koy mooy bi nga xam mbas mi benn bërëb la nekk wala ay bërëb ñu ni bërëb yi mu nekk bu fa kenn dem ngi rek ngir ak bala ngay toxal mbir mi walla balaa nga ko nga fay dem mu dal la waaye comme yow fi nga jege ma fa fi nga jëm ma fa kon war am beneen xàll waaw nañ ko seetaat wa qaala wax na ar rasul bi alayhi salaam yal na mucc sax ci moom fi suumi ci gaaf mu ni in kaana am na fa maskani ci dëkkuwaay lay nekk wal marati ak jigéen wal farasi ak fas ñu lan mooy gaafu dëkkuwaay mu ni xat dëkkuwaay bu xat ba mënul maanaa xejoo ñu fa dëkk kooku gaaf la marati jigéen joo xam ni amul njaboot fas woo xam ni xarewul demul ci jihaad mu ni loolu kon mooy gaafu maana fas waaye ku ko yor dee ko nangam nangam loolu muslaay la laaj ñaan yàlla la laaj wa kaana nekkoon na alayhi salaamu yan na mucc sax ci moom yëkkarahu di sib sayyi al yi aji ñaawi tur naa tur yu ñaaw yi comme demee ni ni arab yi baaxoo woon di tuddee murra di tuddee xarb xanzal yooyu yonent yu bëgg ko woon daka daan soppi waaw saxr ay tur la yoo xam ne yonent yu bëgg ko woon daka daan soppi ku indi maanaa tur yooyu da koy soppi jox la tur turu rafet ndax ñu dañ ko doon def ngir seen doom yi nekk ay jàmbaar mu ne déedéet waaw moo tax soo seetee moom daanaka ñi ko wër ñëpp ay tur yu baax lañu ñu am moom ci waxam turam Muhammad la yaayam turam Amina la baayam Abdallah ah, nga topp ko rek ki ko aw aw bu muy juddu shifa ah, ila axirihi kon tur rafet dañ koy tànn wa yuhibbu daan na bëgg alfaala gaat nga alxasana bu rafet te mooy suy génn ñun dana baax mu koñ dana baax kon dafa mel ni ñu ngi may wax ne la amoon ci waxtu jeex na kon foofu li ñu yem ak yéen ci suñu bin tey di leen wax ni yan nañ yàlla may dégg ak topp ak jariñoo lu ko yomb la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu